28 Prod man maa ngi wuyoo ci turu madame Khady Doucoura di représenter cabinet Touba Univers Management donc euh, di rafetlu jotaay bi. alors euh, Touba Univers Management euh, moom nga représenté fii ci Touba. nga jël mm. exactement mën nañu xam objectif am waaw Touba univers management moom dafa nekk cabinet bu bees bu ñu créé eh, depuis février 2021 en association ak d'autres partenaires euh, comme l'association des ressources humaines du Sénégal donc les personnalités qualifiées de la région du département comme l'honorable député ay Gaye y a d'autres également honorables ak d'autres agents de développement yu ci intervenir il regroupe un ensemble d'experts locaux ay experts yu fi nekk dont man mi expert local am na yeneen experts yu fi nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di def consultance conseil dans le domaine principalement des ressources humaines tout ce qui est intérim placement personnel wutal nit ñi liggéey Euh, donc ni ñu leen utalee liggéey mooy xool lan la ñu màcc lañ la ñu jàng seen ay aptitude li ñu mën ak lan la ñu xarañ ba mën leen a orienté dugal leen ci entreprise yi ñu liggéey muy public bi di privé muy hôpital yeeg di yeeg donc fépp foo xamante mën ko def donc dañ leen di préparer ba xam ne fu ñu dem duñ leen ñu del duñ leen delloosi mm-hmm. donc gis nañ ni xale yi li ci ëpp ci euh, àddina léegi ay ndaw lañ boo jëlee cinquante pour cent population bi daanaka am ci bu ñu amee vingt cinq ans ci lay yem donc ci loolu nag lañu gën a bëgg a jàppale nguur gi ci développement local ak développement durable xam ni jeunes yi la femmes yi la waaw ñu ngi ciy jàpp pour ñu mën a am insertion muy ñi jàng ak ñi jàngul ñi nga fii nag li ci ëpp daara la ñu def ñi ngi fii nag pour ñi nga xamante ne def nañ daara ñu ñëwee ñu mën leen conseiller former leen mën leen placer. waa donc entreprise yi muy hôpitaux yi di di structures privées publiques comme publique comme administration dañuy sollicité soxla dara laaj ñu ñu former placer leen. alors ñenn ñoo ciy ñëw exactement euh, élève bu jàng am niveau la wala boog euh, da ngay xool rek nu ngeen leen orienté ñenn ñoo ci ñenn ñooy cible daal. waaw suñuy donc euh, c'est varié d'abord dañuy ciblé. li ñu bëgg am produit fini comme du personnel de support personnel d'appoint comme ñu mën a am des secrétaires comptables des agents de facturation agents d'accueil des brancardiers entre autres dañu soxla tam ñooñu dañ leen di placer comme les livreurs livreurs yi tam ak les livreurs de gaz ak les chauffeurs entre autres dañuy soxla tam nettoiement sécurité mooy le personnel de support dañuy tam dañuy gis ñu am BFEM tam defuñu dara ñu am bac defuñu dara da nga gis ñu am master dem ba dem Dakar jàng ba am seen master ñëw tëdd Touba wala ñu tëdd Mbàkke xamuñu lu ñu war a def dañuy leen di orienté ñëw fii dañ leen di wax rek ñu commencé am liggéey ñi ñi ñi ngi commencé déposé ñi placé nañ leen ñii ñi ngi xaar ñu woo leen donc bi ñu ak léegi ndam rek la ñu gis donc buñ fekkee am nag am ñoo xam ne am nañ BFEM am bac defuñ dara ñu ngi toog dañ leen di oo formé leen ci lu ñu màcc am ñoo xam ne formé lañ leen ci accueil te temps yi gis ngeen accueil dafa nekk actualité ñu leen formé première promo bi rek déjà jël nañ leen am na ci ñoo xamante ne comme les entreprises l'administration les établissements publics comme privés ñu ngi ñuy woon di ñu laaj ñun tam dañu bëgg former seen personnel ci yi formé nañ am na ñoo xam ne jóge nañ ko saas Jurbel ba ci jam Diamniadio donc Rufisque ba Kër Massar yooyu yëpp mën naa ne soriwul Touba ndax Touba loolu fenn soreetu ñooñu wóolu nañu ñu nekk ci clinique yi ñu formel leen bi ñu delloo gis nañ dañ def suivi évaluation ci liñ tàmbaleegum daal dal na xel ñu ci sant yàlla bu baax macha allah. alors donc Touba Univers Ménagement dafay liggéey ak hôpitaux yi donc wala. Euh, moom dafa jub daal pour liggéey du former nit ki rek bàyyi ko mu dem ak boppam. déedéet duñ former nit ki mukk bàyyi ko mu dem dañu lay former suivre la évaluer la liñ former bu ci hôpital soxlaa day woote hôpital ne li ñuy gën a soxlaa mooy ci accueil bi personnel de support. parce que li ci des ñoom dañu am ñu mel ne ñoom ñu am xam-xam boobu ñu ciy dox léegi nag ñi nga xamante ne nag dafa dafay nas dafay yeexal seen liggéey dañ koy externaliser buñ ko génnee nag soumettre ko lu mel ni cabinet taxaw pour seen ñu mën a def qualité de service et de prestation yooyu yëpp dañ koy jox ak poste yi nga xamante ne ñoom wër nañ ko ba sonn mënuñ ko am ñu woote ñu xool ko kii leen ko rafetlu bu baax est-ce que donc yomb na fii à Touba nit ki xam lan mooy développement euh, bi nga xam ne rawatina moom ngeen nekk di ci yëngatu mooy ñaari pàcc waaw ñaari pàcc yi ci ban fan na mooy développement local bi surtout nga xam ne si euh, euh, nit ñi peut être am na loo xam ne da leen di umpale. effectivement xamuñ fu ñu jëm. effectivement ñan ñoo leen orienté ci yéen. waaw effectivement léegi nag ñun euh, on est cabinet privé mais privé bi yëpp on est là pour aider le développement local développement durable. développement local développement durable na boo ci bëggee jàpp da ngay fexe rek nit ñi xam fi ñu jëm li ci des nag nga wut ndëgër laay feneen. parce que mais xam nañu li ñuy wut nii di ko jàppalee xale yi amuñ ci dara ku ñëw dinañ la jàppale nga am nga ñàkk am dañ lay jàppale mais donc développement local mooy ngay jàppale nguur gi ci sa développement dëkk donc administration da cee bokk privé bokk ci public bokk ci kon nag ñun ñu ngi yaakaar nguur gi lu mel ne trois fpt on a en phase d'accréditation évalué na ñu ñu ngi xaar ñu accrédité ñu suñu accrédité xëy na nguur gi bu boobaa dina dugal loxoom ci cabinet bi 3 euh, ONFP liggéeyal tam les pôles de d'emploi yi ñu commencé mettre en place dans les régions loolu yëpp on travaille en synergie pour mën a kii par ailleurs tam on est sur les réseaux sociaux comme léegi la jeunesse ils ont ils se tournent autour de vingt cinq ans et que c'est cinquante pour cent ils sont tous digitales c'est une jeunesse vraiment digitale on a un site web on a des des réseaux sociaux on est présent sur LinkedIn sur Facebook sur WhatsApp Instagram ak YouTube jàpp naa ne xale yi ñoom foofu ñu ngi réseau bi mu ngi dox bu baax ñu ngi yëg affaire bi on a des cartes partout donc am nañ des points focaux yoo xam ne ñu ngi sensibiliser vraiment pour la promotion de la jeunesse. alors donc je veux dire kon euh, da ngeen di participer ci l'emploi des nga xam ne nii moom la ñu bien sûr bien sûr en tant que parce que ñun ay spécialistes ressources humaines lañ. On est là pour la promotion de l'emploi et la précarité également de l'emploi et de l'employabilité. Donc on travaille de concert avec l'Association des ressources humaines du Sénégal. Ils nous épaulent, ils nous assistent dans le cadre de la formation. On a également des partenaires à l'étranger parce que li ñuy def nii du lu oyof tàmbali nañ ko mais il ñu ànd ko ak ay nit mu nekk un réseau suñu force mooy on est ouvert en réseau ouvert képp ku li ñuy wax yitteel na la ñëwal ñu ànd ko bu ñu sañoon lii law ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëw donc mu gën a am doole donc partenaires yi ne à l'étranger comme Université Canada ñu ngi kii ci ñoom wàllu santé publique wàllu santé mondiale y a tam des partenaires d'autres partenaires européens comme américains y a également les professeurs agrégés de l'université du Sénégal qui sont des personnes ressources donc ñu ngi def ay projets sumb ak ñoom loo xamante ne dina booster mbir mi jëm ci kanam. jigéen euh, rawatina euh, moom nga nekk jiite structure bi xam naa ne sax dina ci sànni waaye nag yéen bu ngeen gisee fii à Touba maanaam xëy bu ndaw bi rawatina ci jàppale jigéen ñi. dafa mel ne ñiy ñëw ñi ëpp maanaam jeunesse féminine bi moom ngeen gën a gis euh, loolu est-ce que du leen poser problème tamit ci problème moom. effectivement bon rafetlu naa. li nga wax loolu ndax ñu nit ay jigéen lañ te ci weeru mars bi lañ génn léegi donc ci dans le cadre leadership féminin am nañ ci lu bari yàggul dara lañ ci am raaye ñu euh, décerné nañu leadership euh, prix leadership féminin dans le cadre du management public ñu ci santaat yàlla bu baax donc euh, dañu gis ni l'essentiel bu ñuy wax la jeunesse jigéen ñee ci ëpp parce que léegi yaa avec une forte scolarisation des fii moo indi niveau bi ba fii donc dañu gis ni jigéen ñi la ñuy may bourse yi jigéen ñi ñooy am ñi leen di fayal ñu jàng boo xoolee potentiel bi actuellement c'est féminin donc bu ñu si formation bi njëkk a def ñaari góor lañ ci amoon li ci des yëpp ay jigéen lañ recrutement bi bu ñu soxlaa li ci ëpp ay góor la donc dinañ fexe tam sensibilisation boobu ñu ngi xool nu ñu mixé les hommes ils sont plus présents dans l'informatique peut-être ak le le les secteurs plus masculins comme les secteurs mobile comme livreurs yi les livreurs de gaz les livreurs comme yi ñuy wax cek-cek bëreegul jigéen donc dañuy def promotion pour góor ñi ñëw les chauffeurs les taxis entre autres même les charretiers ak yëpp on est là pour euh, également appuyer à la sécurité routière gis nañu potentiel bi ñu fi jël ñëpp ay jigéen lañ mais góor ñi am na lu ñu leen réserver ñu ngi xool potentiel bi ñu gën a màcc ñu gën woo leen defal leen plus tard recrutement massif pour ñoom tam ñu leen placer. mais voilà alors ci wàllu xam naa ne du ñàkk am na ñoo xam ñoo leen di jàppale. ci liggéey maa ngi ciy honorable euh, du ñàkk moom tamit am na loo xam ne. mi ngi koy indi euh, ci wàllu li nga xam ne moom la jigéen ñi. di di di yëngoo. honorable euh, maa ngi fekk fay tey fii ci madame Nia ci Touba Univers Ménagement. sa teewaay ci dëgg-dëgg lan la. waaw. jaxate sama teewaay fii ginnaaw ba ma nuyoo ñëpp ba pare di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balwaax ci koor gi dama ñëw di assu ñuy jàppale madame ña xadi Khadijatu Diop xadi Diop <laughs> di jàppale xadi Diop ci liggéey bi parce que liggéey bi amul formel rek ak informel bi ñëpp dinañ ci bokk xam nga lii tàmbali bi la mais incha allah ndax nii ñu ko tàmbalee ak rythme bi nga xam ne bi daf ñu dépassé sax ndax xalaatu wuñ ko woon nii parce que Khady bi mu commencé daf na woon bi affaire bi commencé daf na woon dañuy xëy rek dañuy bàyyi ba am lu concret mais duñ ko jël rek publicité di ko publier noonu formation bi ñu fi njëkk a def yàlla def na réussir woon nañ ko y avait le sous-préfet de Ndam qui assistait ak le pré ak le maire ak euh, un adjoint parmi les adjoints du maire ñëwoon nañ ak mbooloo mu bari ay kilifa diine yëpp ñu lancé affaire bi bi ñu ko lancé léegi nag yàlla def na mi ngi ciy def sutura parce que kenn ku ne xam na ne temps yi dégg lu baax la ñuy dégg nga coow li am ci hôpitaux yi ci accueil beeg orientation bi hôpital bu bees bii tamit daf ko soxlawaat ak ñeneen ñoo xam ne ñi nekkuñ ay banquier bi yeeg ay même boutique yi les les commerçants parce que bëgg nañ ko former nit ñi ci accueil ndax accueil dafa am solo ndax accueil yi nit ki boo ko accueillir rek ci ngay amee ci ngay amee mu kontaan rek kooku déjà am nga ko soo ko accueillir nu bon kontaanul kooku mën naa am nga ñàkk ko donc accueil orientation ci la lépp nekk accueil bi nag boole bañ ko ñi am diplôme yu baax yi am nañ place ñeen ñi am diplôme yu yam yi am nañ place ñi amul diplôme tamit am na lu luñ man te ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne daal sa wërsëg a ngi ci te nga dégg ko boo ñëwee fii daañ nga defal formation daañ la jéemu insérer insertion bi nag insertion bi nag lu ñu lu ñu soxol la parce que xale yi nga xam ne dañ am niveau di tëdd dafa bari te léegi loolu dañ ci bëgg a jóg te ni mu ko waxee léegi est-ce que fi liggéey na bu bari ci est-ce que xam na ne xale jigéen yi jàng nañ mais dañuy wax naan fii amul peut banque yee fi nekk ak yooyu amul ay industriel amul ay kii yu bari yu nit ñi di mën a liggéey mais am na fu ñu leen mën a def di gërëm bu baax Khady ak l'ensemble de ressources humaines du Sénégal ñi nga xam ne teg nañ ci loxo ak ñi koy jàppale ñëpp ndax ñun dañ ñëw pour jàppale si ko ndax dëkk bi lu fi def rek. ñun nga ko defal ndax dëkku Serigne tubaab bi dara waru fee manque ñu di ko jëggaanu ci àll ba kon xalaat bii mu am ba ñëw indi tum fii ci dëkk ci dëkk bi def fi cabinet boobu jël ay moyen def ci ah ñu ngi ñaan yàlla mu kawe njottam mu am ci loo xam ne dina kawe njottam de lim ci jublu tamit mu dimbali doomu aadama yi yàlla fayaat ko ci loolu yéene boobu mu am yàlla nag ko ci yàlla fay fay ñu ñun ñëpp ñun ñu ciy jàpp te xam ne ñu jógee ci les formels tamit dañuy dem sur l'informel parce que même ñi nga xam ne dañoo nekk ci mbedd mi di ay xale yu ndaw di dawal ay saret ak di def yooyu war nañ leen former bañ ci ci yar ci teggin ñu xam ni ñuy nekkee ak nit parce que ñu ci bari xamuñu lu ñuy waxe xamuñu lu ñuy defee te yooyu yëpp ñàkk formation la rek formation bi nag buy bu lawee ba law kenn ku ne di ci gis sa bopp ñu ngi ñaan yàlla daal formation bi law ba kenn ku ne mën cee gis sa bopp. merci waaw merci honorable Euh, moom mooy que euh, dëkk bi nga nekk maanaam euh, dëkk spécial la baat moo fi dox ndax lii kilifa yi yi yaa ngi gisoo ñëw ba laataa nga koy sóobu. waaw ah, jërëjëf donc liggéey moom dañ ko yaatal bi mu tàmbalee loolu lañ njëkk a sàkku ñaanu xalif général des Mourides donc sëñ al al Muntaxa Bachir Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi te dem nañ fa gis ko toog ak moom mu rafetlu ko lool donc ànd fa ak ay kilifa dinaa mën a citer ku mel ne euh, monsieur Lamine Dieng moom c'est un expert en santé communautaire il y a d'autres am na ñeneen kilifa yu nekk ci biir ëmb wàllu santé yor daanaka ŋànk santé Touba yi donc ñoom ànd nañ ci ak ñoom. donc du damay bañ di lim ñëpp daal waaw waaye xalif bi ba léegi da koy laaj day laaj loolu li gën nañ xamal nañ ko ci liñ ne ba wax ko ci tàggat gi ñu bëgg a tàggat ndaw ñi ba ñëpp kii mu mu rafetlu ko lool ba fi mu ne nii da koy laajte di ko laajte waat kon ñu am ci yaakaar lool ku mel ne sëñ am satu Mbàkke mu sëñ son ibu moom dafa ne yëf yi mbiram la da koo téel boppam te bis bu jot mu won ma ne da koo téel boppam am na ay jéego yu mu ci dox am di ànd chaque jour ak ki mu yoon yónni di laaj ñu xoolal ko liggéey bi suñ ko saytu di sant itam yeneen kilifa diine yëpp am na ñoo xam ne jot nañ fa dem waaye dese nañu nag dinañ wër dañuy tàmbali rek dinañ dem ci ñeneen yi waaye jàpp nañ bu ko xalif bi yëgee ñëpp yëg nañ ko donc nag eh, kii tamit média yi itam ak presse bi am nañ yaakaar ci yéen ñii site bi am yaakaar ci seeni collègue ngeen jàpp ci ndax ñoo ko bokk di loolu duñu mën a pare te sant ñu monsieur le préfet donc euh, le préfet de sous-préfet de Ndam ak les autorités donc euh, administratives les autorités euh, locales et les ñu ngi leen di sant monsieur le maire ak les autres autorités des collectivités locales ku ci kiiwulit dem nañ ci yow waxtaan nañ ci ak yow donc ñu ngi ci waa nga rafetlu ko dox ci nu rafet ñoom ñëpp monsieur le maire yabale na fi monsieur le sous-préfet moo ñëwal boppam waaw donc ñuy sant bu baax act euh, ñi fi nekk yëpp di des acteurs ñi fi nekk yëpp di des acteurs de développement local de développement durable muy les les les directeurs d'hôpitaux les direct les médecins chefs donc ak toute la communauté les les autorités administratives yi ci dëkk bi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu médical ci wàllu social ci wàll administration ak privé bi jërëjëf jërëjëf euh, kon ñu ngi daloo madame Khady Doucoura Diop euh, spécialiste ressources dinañ ci wàllu tamit développement ñu ngi ko ci ci yeneen tamit bànqaas ak yeneen kuréel yoo xam ne fas yéene ci ànd ak ñoom ci liggéey ñoom ngir soxal li nga xam ne mooy xëy tamit ndaw ñi ci commune bi ak ci localité Touba jërë ngeen ñëpp mi ngi fekkoon tamit ak sunu xarit honorable député Aïda Gueye mbokk yi dig dañ ci yeneen jotaay